la waaw waaw oh, mana kay ah waaw waa ngi rek kay waa ngi rek ah xam nga rek koor ge kaamil moom day bari moo tax doo am jot ah kon tombe nga ci nag moom nga bëgg waaw waaw waaw waaw ah loolu moom bari na di ah déet xam nga kaamil moom sañuñu koo jaay waaye nag daa am ñoo xam moom ay dix mille la nu waaye fukki junni <laughs> fukk yu bokk bu moom bari bu ku ñu koy jox waaye nag jërëjëf yow da ngaa xam li kaamil bi jariñ moo tax nga jëfee na mu toll yal na yàlla barke lépp incha allah waaw ah déedéet amul solo xatmu bi kay moom <laughs> ni ma koy wax na bari na ni ma kaamil li ma ci gën a mooy sama xatmu ni ma koy jàngee waaye comme kaamil dafa sell waaw ah, fa mu jógee sell moom dañ ko war di sellal waaw bañ di ko kafe jërëjëf jërëjëf waaw ah, kon baax na ay waay ah kii de dama kii de bu ma ci amoon fukk yu mel noonu léegi ma tabax kër gi ci location caméra fukki junni <laughs> nga xam ne ñu a joxe dépense ut loo denc réew xam ne fi mu ne nii doo am moo tax da booy wér di dund waaye boo jege rek moom sa sutura xawee ndax koy lijjanti dëkk bii yi déggar na nag man de daaw di jàdde dem xooli bu mu jox ma lu may dogoo ah daaw da an feere tottakaam xaalis seen xëy 예저 톤 노가지 joga hay dara jóg hay dara mi jogaa waaye ku ne yaa ngi toog fii toog di di calculer fan laa war a jaar comme dëkk bii moom def kawam dégër kam waaye joxo sama dépense damay dem marché damaa bëgg a teel a dem tey nag balaa naaj bee tàng tàmm nga balaa di nga joxe dépense ak deux heures jot naa ngi def tàng de man dama woo ah dëkk bi ka dépense dañ koy lijjanti rek de nga teel nga teel koo lijjanti nag di nga fanaanoo loolu moo tax xanaa xamoo imaam li muy ñaan guddi gi bu ñu naafilaa pare yàlla nañu yàlla jàppale ci ndogo xadd man de amin rek laay salloo amin rek amin tan parce que ndogu moom ak xëdd ku ku woor war nga ko am. dépense lañ koy fanaanoo. léegi nag moo tax nag xam nga yéen dépense koor moom fii ba quatre heures cinq heures koor moom jarul kii. waaye kii dem marché ak ki koy togg na xanaa du nit. ok kam seet tan tot ma dépense bi yoon maa ngi mu tuuti. xaaral ma xool sax ndax sëñ man sëñ bi man xaw ma lan la bëgg ni ah xaaral seet tam. waaw man maa ngi jot xaaral seet tam ah kay xanaa yàlla bu ma dimbalee kay dinaa mën a daaw di ja salaamaaleykum. Thierno ah sëñ bi sëñ bi dimbali ma ngir yàlla. lan la xay jarul fi mu nii aw ma dara aw ma lu ma ndogoo aw lu ma kadde sama soxna saa ngi di ma laaj dépasse ah te waxoon naa la weeru koor gi lu mu dee dee ah, location bi nañ ko def bëccëg ah ñende foofu saa euh, tottaami mille cinq cent wala deux mille wala dépasse ah loolu kay dimbali nit weer bi weeru def lu baax la teew nee nga sëriñ nga kay dee ma jox ay deux mille mille man kee bu ma dara sama kaalis la dara daaluma lu dul sonn ah yow mën nga bu jox ma nga jox ma dara ma jox sama première dame bi yow it la. Euh, comme dépense la mënuma jox ah, baax na man am na léegi ku may xaar ku ma war a indi fukki junni bu ñëwee dinaa jël ñeenti junni jox la. amoon ah, daal comme loolu am na comme koy wàcceel kaamil dalay jox xaalis kay nga jox ma weemi amul problème. Ah, nañ ko xaar. waaw waaw de defaral nga nag kay day teel. ndax borom yet du xeex ak borom fetal te yenn dëgër bopp yi jaay sa bakkan laa waa réew mi tey lu leen mos ak laay ma yalwan maas laay ma yalwan jamana doom yi xanaa dégg woo xanaa dégg woo maanaam maas ak laay ma yalwan ma ne sëñ bi laa wax yow kan <laughs> sëñ bi anamu sëñ sëñ bu mag bi ci kër gi. ñu ngi fi bari na sëñ de sëñ ñoo xam fi ak ak ak sama jaay kala. bu mag bi. Hmm. ñoom ñaar ñëpp dañoo génn man maa fi nekk lan la woon. sam papa moo ma yónnee woon neen daa bëggoon ñu wàcceel ko kaamil. ah loo koy woon yow mii mën ngaa wàccee kaamil. Oh, yow yow kii kii neexul yow da waa xew. damay ànd ak Balla Gaye di di di entraînement am na doole yëkkee damaa xew non mais yow fan étage. ma ñëw loo galaawul xoolal boo boo fay dala. loo ma jox rek bu baax na. loo ma jox baax na. waaw yàlla yàlla eh, yàlla. waaw boo boo koy liggéeyal bu ah? bul xaal dara lu mu la jox nga jël moom boo paree fu ko neexee mu jox ko bu la saxalaa bu fat dara